xam nañ sa diggante moom tey euh, bi nga xam ne surtout nag foot boobu bi nga xam ne def na euh, ma ma jëkk sant sunu borom julli si yenent bi sallallahu dellu sant suma yaakaar Cheikh ma Bamba wax alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëfati na Ahmadul Xadim maa ngi nuyu kilifa diine yëpp ak nuyu waa senegal yëpp di leen ñaanal di ñaanal Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér moom ak sëñ Babacar Sy Mansour ak kilifa diine yëpp te di wax ñoom seen cër si réew mi dafa nekk cër boo xam ni dañ ko war sant yàlla ndax ñoom seen ñaan ak seen taxawaay daf noo yiir daf noo dimbali mhm. sëñ bi nag daf nu jàngal àddina te waa senegal de war nañ ko dégg tey ku dégg discours bi te dund le premier juin li xew Sénégal war nga am gàcce lan moo tax premier juin am mer lan moo tax premier juin am mooy fayonte lan moo tax premier juin am mooy yëkkati fitna tey nag ku ko dégg daa am gàcce nga xam ni loolu amul njariñ amul njariñ ñaata nit ñaata bakkan ñoo si des kenn xamul na la toll ñii di wax fanweer ñii di wax fukk ak juróom benn ñi wax leneen hmm. benn bakkan rek ëpp benn bakkan rek yàqu-yàqu bi nan la toll foo ko natt rek weesu naka te de suñu defoon le Cheikh Mat Bamba defoon hmm. billahi daanu am ndam ak fu mu mën jóge nag hmm. ak ku mu mën doon Cheikh Mat Bamba bi mu ñëwee fii dellu si ak dund gu metti gi nga xam ni dund na ko sa Gabon coono boobu moom kese mu nekk faak boromam mm. te su histoire mu ko doo gis kenn ku nu yóbbu Gabon mu dellu si ku dul Mat Bamba mm. ba mu dellu see mu xam ne yàlla may naka ndam bi mu ñëwee lan la jëkk def mooy jéggal ay noonam su jéggalul woon ay noonam mm. tey ku gis tubaab da ngay wax ni damay fayul damay fayul sëñ tubaab ba tubaab yi nu dem Touba te tey tubaab yi ñoo démb rek la ambassadeur barke démb ambassadeur u Tchèque la jóge Touba ambassadeur u Italie la fa jóge ak ambassadeur yooyu mm-hmm. booba nag sëñ Touba loolu yàlla moo ko may ndam loo xam ni mm-hmm. na mu jéggale woon moo tax ñëpp daw wut ku dul jéggale kenn du daw di la wut kon nag moo tax ma ni jéggale mm-hmm. dañ ko war di dund di ko jëfe mm-hmm. dem ba de ba mu doon loo xam ni dafay nekk suñu biir xol te nag aussi nu mën muñ li sëñ bi wax jàngale na koo xam ni soo meree rek jug ni damay faj sama mer soo ko defee rek Eh, daa daa gaañu daa gaañu daa day eh, eh, paaka la mer mm-hmm. boo xam ni soo ko yëkkatee génne ko man nga si mbaram man na la gaañ da ngay gaañi mm-hmm. kon nag jëlal dugal ko si mbar mi loolu nag lan moo koy dox da ngay mën muñ mm-hmm. loolu sëñ bi wax te mën muñ suñu borom moo wax inna laha ma sabirina maa ngi ànd ak muñ gi maa ngi maa ngi ànd ak aji muñ gi yamul foofu nag tey règle de valeur la ñu fàttali mooy mag ñi dañu war yërëm ndaw ñi mm-hmm. ndaw ñi mm-hmm. dañu war mm-hmm. dañu war weg mag ñi sëñ Tuubaa lu mu ko wax waja wajaal saqra naa yu waaxiru kabir wajaal kabir naa yu hiinu li saxir suñ ko defee rek am jàmm Sénégal delloo si leen seen bopp Mm-hmm. ngeen xam ni du fayonte moo man defal réew mi mm-hmm. Sénégal na delloo seen bopp du ko am doole dafa war jëfe doole Sénégal nanu am yërmande si ki néew doole mm-hmm. ki am doole na bañ fayu na ñëpp mën jégalante suñu jégalante rek Sénégal dana jëm kanam réew mi euh, yàlla barkeel na ko ci wetu euh, taalibi Sëñ Tuubaa waaw nekkoon kilifa ci réew mi waaw ñu gis moom it euh, bokk na ci ñi nga xam ni ci saa yi ñoo tax ñu jot bërëb bi muy président Abdoulaye Wade waaye moom it ñu gis ni mu doon doxalee ci wàllu jéggale ak jëlale te yow nga bokkoon ci ñu ko gën a jege bokk booba sax nekkagul président nekkoon avocat am lan nga mën fàttali rek benn anecdote rek ci loo xam ne war nañ koy roy ci moom ba tey ci jéggale ak jëllale. président Abdoulaye dama yi xool benn bés wax ni que président daal man gis naa ni ngay dundee sa gëm sëñ tubaa waaye gëm naa ni yow ku gëm sëñ tubaa nga ma ni que da koy dund te da nga koy jëfee. Hmm. min ma ma di lu waral loolu ma ne que dama xool sa table bi sa table conseil des ministres bi rek wàññi naa fi juróom-benn nit yoo xam ne wax wax nan la li juutu ngay doon président wax nan la lu ñaaw loo xam ni lu ñaaw loo xam ni yaakaaruloo ñu jéggal nga leen ba pare jox leen tey cër ñu bokk ak yow benn taable ñu bokk benn table kooku kooku ku mën jéggale la ku man jéggale la réew nag il faut ngay jéggale mm-hmm. mm-hmm. ñëpp war jéggale njiit li dafa war jéggale ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo topp si njiit li di jéggale ñëpp war jéggale su fekkee ni ñu ñëpp dund nañu war jéggale rek réew mi jàmm rek a fi am waaw sunu dindee fayonte génne ko sunu xol mhm. jël sunu mer di xeex moom ni sëñ bi wax da ngay xeex ak sa mer mhm. ba dellu si doon nit parce que mer soo ko defee rek nekk nit daf lay të soo demee ba ne nekk nit nag mm. ngay seet nooy jëfe waaw jërëjëfati sëñ Touba jërëjëfati fi ñu daanelee rek nga baal ñu mooy euh, président Macky Sall euh, papa nga baal ñu rek fi ñu daanelee mooy euh, conclusion assise nationale yi ndax am nga ci njort waaw waaw waaw assise nationale yi waaw merci encore Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah et en même temps prier pour que la paix et le salut éternel soient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance et ses compagnons. Qu'il en soit ainsi pour Cheikh Ahmad Bamba et tous les chefs religieux du Sénégal. Prier pour que Dieu prête une vie encore plus longue à Serigne Mountakha à Serigne Mbaye Sy Mansour et à tous les chefs religieux. Je voudrais une fois de plus saluer le sermon du marabout. Il est très riche. Il est très riche en enseignement. Il suffit de pratiquer ce sermon aujourd'hui pour arriver à ramener la paix, le calme au Sénégal. D'abord, il faut rechercher la culture du pardon, l'appliquer pour élever le pardon au rang de culte. C'est ce qu'il nous a fait savoir à travers des hadiths du prophète à travers le Coran, des hadiths du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à travers des enseignements de Cheikh Bamba. Si Cheikh Bamba n'avait pas eu à pardonner, à pardonner à ses bourreaux, à ce retour d'exil, aujourd'hui, on n'aurait jamais vu, on n'aurait jamais vu des Occidentaux à Touba. Mais Touba est couru aujourd'hui par tous les ambassadeurs, est couru aujourd'hui par toutes les organisations internationales et étrangères. parce que Serigne Touba a pardonné à ses bourreaux. C'est cette culture du pardon qui fait que nous devons en faire un culte. Mais aussi, il faut savoir tolérer. Il faut savoir aussi dominer sa colère. Ce qui s'est passé le 1er juin est une honte. J'ai honte pour mon pays parce que nous avons connu le 1er juin. Parce que ce 1er juin, c'est le déferlement de la colère. c'est le déferlement de la rancœur, c'est le déferlement de la rancune. Nous n'avons pas su dominer nos états d'âme, nous n'avons pas été des musulmans, de bons musulmans. Aujourd'hui, nous, devons, nous devons redevenir des bons musulmans. Le bon musulman, c'est celui qui cultive la paix. Voilà ce que je dis par rapport au discours du Khalif, euh, au discours de l'imam. La situation du pays, j'en ai parlé. J'en ai parlé en disant il faut les enseignements du marabout nous amèneraient aujourd'hui à ramener la...